bés bu mag la ndax xam ngeen ni juróom-ñetti at suñu gannaaw université de Thiès taxawal daara bi nga xam ni mbiru faj lay jàngale muy UFR santé tey nag la xale yi àggale seen jàng ñu jox leen seen ay lijaasa te ñoom ay fajkat lañu su jox leen lijaasa rek doyul dañu war a tamit waat ngir ni li nga xam ni moom la ñuy yaakaar ci ñoom ci faj ci nekkin ak doxalin danañu ko def seen biir dund loolu nag tey dafa am fii ci palais des congrès muy tamit njalbeenu euh, activité bi am fii ci palais de congrès bu ñu ko beesalaatee defaraat ko jëfandikoo fii ci wetu promotion Thiessois xale yi génn nag seen promotion dañu ko tuddee professeur Pape Ibra Samb xam ngeen ni professeur Pape Ibra Samb moom moo ubbi iniversité bi moom moo tamit euh, nekk ci njalbeenu taxawal daara bi nga xam ni moo yor paj mi am na ñu bare nag ñu ñu fi lim ñoo xam ne dugal nañu ci seen loxo muy professeur Mourtala Ka mi jëkk ubbi daara bi te tey professeur na Silla euh, wutu ko ak ay professeur yu mel na professeur Abdourahmane Dia Cheikh bu booy ay Moussa Sow ak ñeneen ak ñeneen ñëpp ñi nga xam ni dugal nañu ci seen loxo bi nga xam ne njàng mi mun a nekk te boole ci it ngërëm ak cant ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci structure de santé yi nekk Thiès muy hôpital yi muy centre de santé yi ak yeneen ak yeneen ndax ñoom suñ ci deful woon it seen loxo njàng mi du gaaw a yemb université Thiès nag day université boo xam ni tey dañu ko ràññee ci réew mi te mu ngi gën a yaatu ndax tabax yaa ngi gën na léegi fu nekk amatul léegi fooy dem ci université bi te gisoo tabax yu bees mba tabax yu àgg loolu yëpp nag ci doxalin ak xalaat ak euh, décision bu président de la république son excellence monsieur Macky Sall. Euh, monsieur le ministre bii mooy UFR bu njëkk ginnaaw faculté médecine bu UCAD ndax loolu day wane ne euh, mën nañu délocaliser enseignement supérieur bi avec des résultats yu ñu si xaar. waaw loolu moom délocaliser bi ak résultats yi mun nañu wax ni sax jiitu na lii ndax xam ngeen ni Sénégal bu mu paree université Cheikh Anta Diop 1990 la taxawal ñaareelu université am muy université Gaston Berger bu Ndar boobu déjà wane woon na ni ci ñi mu génnee. que jàngale fu dul mun na am solo trop cees tamit mooy njalbeenu université bi nga xam ne moo jëkk taxawal daare bi nga xam ne dañ cee jàngale paj tey wone na ni jàngale paj mun nañu ko tamit yóbbu ci région yu Sénégal ndax kat lim naa sànq ñaata professeur titulaire yu bees la ñu formé fii ci Thiès ñaata maître de conférence agrégé la ñu formé ci Thiès ñaata xale ñoo at mi ci internat des hôpitaux loolu yëpp dafa wane ni rek suñu réew day màgg te suy màgg xam-xam bi dafa war a fekki askan bi ndax ci la koy mun a jëriñoo looloo indi une UFR santé bu cees taxaw ñu teg ci UFR santé bu Ndar ñu teg ci UFR santé bu université Assane Seck bu Ziguinchor te tamit université Amadou Mahtar Mbow nga xam ni tabax bi tàmbali na moom it dana am benn pôle santé bu am maanaa te yemu ci sax ndax am na tey ay université privée yoo xam ni am nañu UFR santé mbaa faculté de médecine jàng mi day gën a yaatu ndax askan bi da ko soxla ndax it sénégalais dafa bëgg ni moroomam yi nekk bitim réew nekkee moom it mu am lu mel noonu mbaa lu ko gën tàggat dernière question formé ay nit baax na mais ndax seen ëllëg yeneen si xalaat fanweeri docteur ak ñeent au même moment am na ñu ñu formé woon sa liggéey xam nga loolu moom kenn du ko xool mukk soo ko xoolee doo formé xam nga dama lay jox exemple ndar bu ñu tàmbalee forme informaticien boobu liggéey bi sax taxawul da ngay jàngale dafa war a seet lii ñëw ëllëg fexe ba ñi am xereñ boobu ñi am métier boobu ñu am ci réew mi ndax su ñu amee ci réew mi rek képp ku leen bëgg jëfandikoo di nga mun ñëw sànc li nga xam ni moom nga leen di jëfandikoo réew mi doyalagul médecin réew mi amul sa spécialiste yu doy moo tax war nañu former sax lu ëpp lii loolu tax may ñaax sànq euh, université yi di ñaax sànq daara yi yore affaire yu njàngale faj ak wér yaram nañu seet nan lañuy ñuy soppee jumtuwaayu jàngale bi ngir ñu mun a jël xale lu ëpp li ñuy jël léegi ndax loolooy gën a tax suñu réew soo nee médecin bi dootul nekk ay fukki ju nekk lu ko ëpp moo ñooy ñëw mu leen di faj mais dina nekk ay junni ñoo xam ni moo leen di faj te loolu mooy réew yi nga xam ne ñooñu gën féete kanam te yooyu la ñu war a roy ngir suñu askan mun a wér tax soo wéree rek nga mun a gudd fan ndax tey ñuy wax ku nekk sa yaakaaru gudd fan ñun ñu ngi ci peut-être juróom benn fukki at ak juróom mais am na ay réew yoo xam ne ñu ngi ci juróom ñett fukki at lan moo ñu fay yóbbu am wér-gu-yaram bu doy te doo wax wér-gu-yaram te amoo médecin amoo infirmier amoo sage-femme amoo infirmière amoo tamit infrastructure technologique yi. jërëjëf bés bu mag la pour université bu Thiès mu nekk nekkoon euh, li ñuy wax euh, sortie de promotion mooy xale yi nga xamante ni. ñoom la ñu njëkk a génne ci njàngu médecine ñu waroon jot seen lijaasa ñu ànd ak ñoom seen i ay enseignants yoo xamante ni ay agrégé yu bees lañu wala ñoo xamante ni ci euh, li ñuy wax CAMES nga xamante ni euh, mooy natt ñi nga xamante ni ñoo jóge ci daara yu kaw yi ñooñu ñëpp ñu boole ko tey war ko def feet ñuy wane ni nag ci université yi Thiès wax dëgg yàlla bu fekkee njàngale rek la li ñuy wax qualité am na fii. te ñu ngi ciy góorlu bu baax a baax a baax. la. waaw secret bi du dara lu dul liggéey rek liggéey ànd ak suñuy kilifa parce que aussi euh, wax dëgg yàlla euh, état bi mi ngi def lu mu mun am na alal yu bare yu nga xamante ni def nañ ko ci biir université bi boo leen xoolee université bi fii ñu toll nii wax naa ko sànq suma discours euh, li ñuy tabax rek mat na 9 milliards loolu nag kuñ ko defal da nga war a góorgóorlu. góor góorgóorlu bi itam nag dafa fekk aussi ñu sonn ñu ci ànd ak ñun ak ñun suñu ministre ànd ak ñun donc loolu yëpp fexe na ba nga xamante ni daal ñi ngi liggéey ñi ngi avancé yàlla baax na du bëriwuñu coow nag coow li du bëri waaye soobee yàlla incha allah université de bi na bokk ci université yi nga xam ne ñoo gën a taxaw ñoo gën a rëy ci Sénégal ak ci Afrique. Merci, merci monsieur le, monsieur le représentant du ministre de la santé. messieurs les membres du corps diplomatique, monsieur le gouverneur, le président du conseil départemental de Thiès, monsieur le maire, monsieur le président du conseil d'administration de l'université de Thiès, monsieur le recteur de l'université de Thiès, Je devais citer d'abord Monsieur le directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche et Monsieur le directeur de la recherche. les, monsieur le membre, messieurs les anciens recteurs, Monsieur le recteur, monsieur, messieurs les anciens recteurs, Madame l'administrateur de la Fondation Sonatel, Monsieur le directeur du, du consortium d'entreprise, Monsieur le directeur des ciments du Sahel, messieurs, monsieur le directeur de l'UFR Santé, messieurs les directeurs d'UFR et d'Institut, monsieur le secrétaire général de l'Université de Thiès, mesdames, messieurs les directeurs centraux, messieurs les chef des services euh, départementaux et régionaux, messieurs les représentants des parents d'étudiants, messieurs les membres du perso personnel administratif, technique et de service, messieurs les présidents des amicales d'étudiants, chères étudiantes, chers étudiants, honorables invités à vos en vos titres et qualités. Je me sens ravi de me retrouver parmi vous à l'occasion de cette cérémonie marquant les premières soutenances de l'UFR Santé, de notre prestigieux temple du savoir. Naturellement, j'ai accueilli le parrainage de cette cérémonie avec foi et humilité. Aussi voudrais-je remercier très chaleureusement et très sincèrement les autorités de l'UFR, avec à leur tête le directeur en y associant tout le personnel Je confonds dans les mêmes remerciements Monsieur le recteur de l'Université Thiès ainsi que l'ensemble du personnel de l'université. Je tiens également à vous féliciter de la célébration de cet événement plein de symboles en ce lieu mythique qui, à lui seul, ouvre une nouvelle ère pour notre université. que tous ceux qui ont aidé à la réalisation de ce rêve trouvent ici mes remerciements et mes compliments déférents. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de partager ce moment d'immense fierté avec toute l'équipe d'une époque. Cette équipe qui a permis à cette UFR de naître avec un projet pédagogique prêt à l'emploi, un projet pédagogique ficelée. Laquelle maquette conçue tous les vendredis et pendant six mois en tenant compte de leur expérience, mais travaillant avec beaucoup de générosité pour concevoir un projet novateur pour lui faire santé de caisse. il est ainsi aisé de comprendre que notre bébé qui étrenne ses premiers docteurs est la fille de la faculté de messine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et l'humilité nous recommande reconnaissance et fidélité. Si j'ai parlé d'équipe, j'ai pensé à cette équipe pionnière composée des professeurs Abdourahmane Dia Murtala Ka Cheikhna Silla Yann Sow Abdoulaye Samb et Abdou Kane. Cette équipe ne s'est pas arrêtée à la conception d'un projet. Ils l'ont encadré et sécurisé pour que notre rêve devienne une réalité. le bureau de liaison avec l'aide discrète et efficace de Madame Diouf et de Abdoulaye Bao n'a pas été en reste. Avec votre permission, avec votre permission, vous me demanderez de demander à cette équipe s'ils sont là de se lever pour que tout le monde les voit. Les six, les six plus, plus leur ancien doyen, plus leur ancien doyen, devenu mon prédécesseur. Je veux citer donc le recteur, cher Sadib Boy. C'est lui qui a nommer cette commission du comité de pilotage, sans lequel cette UFR n'aurait pas vu le jour. Et c'est important de rappeler cette situation ex ante, c'est-à-dire la situation sans le projet, parce que c'est cela qui a permis de concevoir un projet novateur et qui a été conduit de, mai de maître par le professeur Mourtalaka avec son équipe dont le professeur Cherna Silla. Je partage aussi donc cette reconnaissance avec les, tous nos collaborateurs de cette époque-là, dont le professeur Mohamed Fadegnan, ma koy wax léegi ñàkk koo xam la parce que il a été de tous mes collaborateurs le plus proche et on se quittait les jours vers 19h ou 20 suivant mes humeurs et les charges de travail. Jamais il ne quittait avant moi. C'est une histoire à succès qui mérite d'être racontée aux jeunes générations puisqu'il s'en inspire pour le plus grand bien de notre pays. Permettez-moi aussi de revenir sur certains souvenirs ayant conduit à l'affectation du sud de l'UFR par M. le gouverneur Ahmed Fall, qui a permis à l'UFR de se doter d'un temple du, en, lieu et, en place de la classe prêtée par de la salle de classe prêtée par le CNEPS. Là aussi, je vais raconter une anecdote. Permettez-moi de raconter une anecdote. quand le projet était ficelé, que je ne dormais plus, à force de dénicher ou de trouver à Thiès une niche écologique pour les professeurs de médecine, que je savais déjà être arrivé à un stade très élevé de leur carrière. Comment qu'est-ce que je peux leur proposer pour qu'ils acceptent de rester à Thiès C'est dans ce contexte-là qu'un jour, le professeur Murtala Ka m'appelle. Je pensais qu'il était à Dakar. Et je lui demande où est-ce qu'il se trouvait. me disait qu'il était au CENEPS. Est-ce que vous pouvez me retrouver au CENEPS Alors, je viens le trouver et il me présente déjà la salle qui devait les recevoir les premiers étudiants. Il avait déjà négocié un bon soir déjà cette salle de classe avec le directeur du CENEPS. je ne pourrais pas ne pas mentionner le pragmatisme du directeur fondateur avec son équipe de choc qui, usant de leurs relations professionnelles comme personnelles, ont permis à l'UFR un démarrage de qualité. Ce rappel n'est point fait pour, euh, pour faire oublier le mérite ô combien prestigieux des différentes équipes successives au niveau de l'UFR comme de l'université, comme de la direction de l'université. Chaque fois que nous constatons les acquis aux différents niveaux de cette institution, c'est avec une admiration contemplative que nous constatons les progrès. Ce, progrès nous offre, ce projet nous offre un modèle de ce que des esprits brillants et motivés peuvent réaliser quand on en avant les projets et les ambitions que l'on a pour son pays. Ces moyens étaient plus que modestes pendant très longtemps. Il fallait un engagement et il a été au rendez-vous pour rendre possible la cérémonie d'aujourd'hui. Rendons grâce donc à Allah et prions de voir se réaliser les autres projets en cours, comme celui prévu de laboratoire d'analyse médicale à l'ancienne inspection médicale des écoles. C'est une histoire à succès qui est vraiment, euh, à plus, bien des égards, un modèle de réussite. Pour revenir à l'objet de cette cérémonie, permettez-moi de féliciter les étudiants en médecine qui font notre fierté aujourd'hui en étant à l'honneur de cette magnifique manifestation. Au-delà du rituel, les soutenances constituent la sanction positive des efforts soutenus pendant plusieurs années de dur labeur. Nous le savons tous, des nuits blanches, des stress, des devoirs et des examens parfois fastidieux n'ont pas manqué dans le long chemin parsemé parfois de doutes et d'incertitudes depuis que vous avez franchi le seuil de cette UFR. Votre abnégation, le sens du travail sans relâche et votre assiduité ont eu raison sur les objectifs que vous étiez fixés. Le, la trajectoire n'a été ni facile ni évidente, mais votre détermination a permis de surmonter les épreuves et de figurer parmi ceux qui auront à se présenter devant ces jurys pour défendre les thèses de doctorat en médecine. Pour ma part, je mesure avec admiration le parcours exceptionnel effectué par les futurs médecins jusqu'à cette thèse qui est aussi une étape importante. Elle couronne la formation et reflète la personnalité des médecins. Ces thèses contribuant